Euh, Sané euh, ñu taxaw ci la visite du président Bassirou Diomaye Faye bi mu entamé tey euh, dama gis ah mu sol tenue militaire ñu ne comme la Macky Sall defoon ba ndox ma taxawee ca ca Kër Momar Sarr pour yow ban message le président de la République bëgg a renvoyer. moom la moom la moom la Abdoulaye wax sànq. c'est c'est c'est justement une communication de crise maanaam mu ngi wan Sénégalais que le. le regret. l'heure est grave waaw leur et grave te euh, Moussa soo ko xoolee li ministre bi wax sànq zone boobu maa ngi koy fàttali que c'est une des zones les plus dangereuses les plus criminogènes au Sénégal loolu mooy ci as benn aspect bi beneen aspect bi mooy li mu doon wax sànq ci produit yu bon yi nga xam ne moom la ñuy utiliser foofu mhm. orpaillage clandestin bi dafa créer benn benn genre marché d'armes marché ay ay comptoir clandestin de vente d'or mhm. ak yeneen yu bëri bëri bëri yi nga xam ne moo am foofu te lii tax ma doon wax sànq monsieur le ministre pour que peut-être que moom da dugg ci détail parce que c'est normal soo xoolee zone boobu c'est la zone du Sénégal bi nga xam ne qui est la plus exposée président nag buy dem cet aspect sécuritaire boobu muy mettre en avant moom laa jàpp ni moom moo tax mu sol tenue bi wan sénégalais yi ni que fa ma jëm nii c'est parce que lii dafa am muy mën mi mais la nga xam ne mooy beneen mbir bi mooy atteinte environnementale yi nga xam ne ñu ngi koy subir mm-hmm. te bu ëllëgee askan bi xëy na dootuñu am ndox bu baax bu ñuy naan ak leneen la nga xam ne nag peut-être ñoom mënuñu ko wax sénégalais dégg ko mooy ñun suñu frontière ak réew mii nga xam ne mooy Mali ay jafe-jafe bëri na fa ah? ay jafe-jafe bëri na fa ay jafe-jafe bëri na fa d'accord Pape le président de la République lui-même il fait partie de l'armée c'est le chef suprême des d'accord donc am na droit soo seen tenue tout à fait euh, maa ngi gis Georges Dassa Diop sax mu bind ne c'est le premier général non c'est le chef suprême des armées d'accord day sol tenue lenn rek lañ ko mayul mooy mu sol euh, écusson mooy maanaam euh, luy màndargaal ni ko corps bii la bokk wala grade. waaw. mais may nañ ko mu def ci mbaxaneem président PR. Mhm. may nañ ko ci tenue mu bind ci président Bassirou Diomaye Faye waaw loolu mooy wane ni que moom armée bi mooy seen kilifa. waaw du sol écusson maanaam ñu xam ne ci batayon bii la bokk. Mhm. wala bataillon bee la bokk du sol grade ñu ne mooy général wala mooy colonel déedéet maanaam moom rek jëmmam ji rek mooy wane ni que c'est lui le patron des armées. très bien alors euh, Pape am na ñu ne aussi euh, Bassirou Diomaye euh, am na journaliste sax ma gis bind ko. Mhm. dafay coulonner un peu euh, Macky Sall. <laughs> parce que Macky Sall ba ndox ma <laughs> defee nii bu avee ah, passé par le même problème. Euh, ba ci woo ba bañee à fële Kër Momar Sarr tenue bu mel ni <coughs> dem fa. Madiambal <laughs> bon voilà non bon moom euh, euh, voilà toujours dafay xool rek lu mu mën a critiquer mu critiquer mhm. mais euh, trait yi je pense que dafa am lu muy lu muy lu muy renvoyé symbole bi muy renvoyé bokk na ci action ak homme de terrain mhm. président bu ko solee dafay renvoyer cette image de quelqu'un koo xamante ni dafay dem sur dafay dem sur le terrain teg ay actions yoo xamante ni pour résoudre ay problème la mhm. Macky Sall ba muy dem looloo tax mu dem du question dañuy sol euh, trait yi pour sol ko mais euh, symbolique bi moom moo tax ñu koy sol en fait président yi souvent bu ñu nekkee euh, ci ay problème sinistre rek yooyu noonu dañ koy sol wala aussi bu ñu nekkee ci problème de guerre pour wane que ni moom dafa am autorité aussi wane solidarité ñi nga xamante ñooy militaires yeeg yooyu donc loolu du du président dafa ajuster son agenda euh, Moustapha le mhm. président mënul dafa agenda ci deux jours wala trois jours agenda bii muy dawal nii da koy da koy da koy préétablir minimum un mois avant moom président visite bii mu waroon def Kédougou mhm. c'était déjà prévu un mois à l'avance maintenant am na ay situation yu dugg mu changé ko dugal si visiter zone yi nga xamante ne ay zone de sinistre la. da confirme lu ministre doon wax sax. mais mais déplacement moom monsieur le ministre à plus forte raison un président de la balaa muy dem protocole am war nañu mën a dem xool situation sécuritaire xool xool xool xool donc moom dafa ajusté waat euh, li nga xamante ne mooy calendrier ak agenda am mhm. pour jëm ci dugal lii parce que bu ko deful woon ñu wax donc c'est en fait c'est ça mais euh, yenn yi aussi gis nga lu Abdoulaye Mbow wax moom moo moom moo fi am quoi Sénégal dafa parfois dafay xaw a doy waar on se rappelle de euh, du décès de Fallou Sène mu tombe woon ak période wala ñi doon waaye dem ci élection présidentielle mhm. mais homme politique dañ doon rang di dem këram comme pas possible ku nekk dem na fa amul benn candidat bu déclaré woon sa candidature te demul woon seeti këram euh, njabootam. te amul kenn ku respecté engagement yi nga xamante ne jëloon nañ ko fa. ñoom ñëpp dem nañ fa jaale jaaleelu wax ci presse bi ñaawlu ñaawlu ñaawlu mais amul kenn ku ci respecté engagement donc am na yoo xamante dafa ñaaw cest gis nga nit bu nekkee si ay jafe-jafe boo yoree sa meew bi yóbbul ko ko. jaxul caméra di dem jaxul leneen di dem bu nekkee yow ndimbal moom moo la tax a jóg. est-ce que c'est trop demandé à notre classe politique que bu yu mel ni amee avant après ou avant avec Macky Sall tey avec avec Bassirou Diomaye Faye que est-ce que c'est, c'est pas parfois euh, trop demandé aux hommes politiques sénégalais que de dire. ñi ngi ci ginnaaw gouvernement bi ñu ngi koy pousser ñu ngi koy encourager pour mu def nangam. waaw mais euh, c'est trop demandé parce ñu c'est je boo amee classe politique bu amul classe c'est trop demandé pour eux <laughs> donc ñoom tey li ñu waroon def en fait lool la mooy que wax président de la République ñun de mën nañu soutenir à travers benn téléthon war dañuy jël suñu alal ñu jox la ko nga dem dimbali ñi nga xamante ne ñoo nekk. ci situation yi parce que aussi munoo ni lii da nga koy jël ni imputer responsabilité gouvernement bi am na yoo xamante ne xel na ko sax nanguwul. Mm-hmm. bu ñu fi toogoon 10 ans sax munoo ni phénomène naturel da ngay naan gouvernement bi dafa lajj. États-Unis première puissance mondiale. Mm-hmm. mooy am jafe-jafe phénomène naturel à plus forte raison réew boo xamante ne saa ci sous la ne. donc dafa am yoo xamante ni ñun suñu classe politique dañu yaakaar ni que euh, buñ koy wax day tax ba nit ñi dañ leen di bëgg mais alors que dafay contre-productif à chaque fois bu ñu koy wax nit ñi leen di gën a jéppi parce que day wane rek que dafay gën a am fossé bi grandissant entre askan bi ak ñoom li nga xamante ni mooy li ñu bëgg te li ñu bëgg mën nañ ko am ci élection sénégalais ñooy tànn mais jamono yi ñu tànnee ba noppi nañu bàyyi ñi fi nekk def li nga xamante ni moo tax ñu fal leen te te te te ñu wàññi seen politique politicienne bi Pape Moussa est-ce que tey euh, la classe politique l'opposition notamment doonul woon marqué grand coup su defoon lii